mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp suñu programme yi ci site bii di tubaa Argentine TV tey nag xam ngeen Touba Argentine TV moom tubaarkàlla euh, ci activité yu am solo rek lay jooyal ay li nga xam ne moom mooy ay programme moo tax tey ñu def dérangement ak déplacement bu yaatoo yaatu ndax tey génn nañ région bu Diourbel bépp ñu ngi tey ci région bu Louga euh, ndax tey ñoo ngi fii nga xamante si ni mooy Daaru Saam Daaru Saam nag kenn dootu ko présenté ci yoonu Mouride ndax xam ngeen Seexub Cheikh Ahmed Bamba Xaadim Rasuul bu mag boobu yi nga xamante mooy Serigne Massamba Diop Saam moom la ñuy euh, fekk si fii ak seenu njaboot Euh, ndaxte sëriñ Massamba Diop saam dégg ngeen jëf juré ji nga xam ne Seexul Xadiim waxoon na ko ci moom sëñ ma Diop Sam sëñ Massamba Diop Sam demal Daaru Sam euh, ma fekk la fa te ko ku fa toog boo ne ab rek boo fekkul man ma fekk la fa euh, wax juré jooji gis ngeen ko moom la Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasul waxoon ci sëriñ Massamba Diop Sam bis bi nag nga xamante si moom lañ koy fàttaliku fii ñëpp xam nañ ni ñu ngi ko tudde woon sant sëriñ Massamba Diop Sam waaye comme que Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasul dafa waxoon ni képp koo xam ne yaakaar nga ma demal nga siyaari ji sëriñ Massamba jot Sam ca Njaareem moo tax euh, ki nga xamante ni mooy sëriñ Amsatou Mbacke moom Daarul Muxti euh, joxoon ndigal njaboot gi ñu bàyyi cant sëriñ Massamba Diop Sam googu te tudde ko rek siyaar siyaar nag xam na li ci nekk ci kiy jóg di siyaar ji ak boo siyaar yi nitu yàlla moo tax bis bi bisu bëccëg lay doon euh, siyaar it lay doon moo tax bu nu timisee rek tombe ak ñu def yi war a def yëpp ñaanal ñëpp moo tax gis nga bi nga xamante si ni yegg si nañ fii ñoo ngi taxaw nii gis ngeen mbooloo mi ñu ngi jóge fu ne ndax di barkeelu ci bis bi nga xam te si Ahmed Bamba Xaadim waxoon na ko ci Serigne Massamba Diop Samb boobu muy siyaare boobu te Serigne Amsatou Mbacke moom Daarul Muxti joxe woon ndigal taalibe yi ak kilifa yi pour ñu euh, delloosiwaat ko waaye bu njëkkoon sant Serigne Massamba Diop Samb ko doon def. moo tax nag gis ngeen bis yi ngeen di séen ak oto yeeg jakartamaan yeeg fu ne rek mbooloo nga fay bàyyi ko ci gox yi ko am na ñu jóge Thiès. am na ñu jóge Mbuur am na ñu jóge Kaolack am na ñu jóge Touba am na ñu jóge dakaar am na ñu jóge ay mbaqis ak dëkk yi ngi wër yëpp euh, Daaru Sam euh, ak euh, département bu Kébémer bi yëpp rek fenn fu nekk nit a nga fa bàyyeekoo ngir ñëw siyaare si ci bis bu màgg boobu nga xam ne Seexul Xaddim waxoon na ko ci Serigne bu Diop Sam bi ñëwee nag danoo def directement rek ngir jubali ci li nga xam te si mooy néegu bi yàlla bi ndax xam nga ni li olof yi naan ku sa baay rafaate faat waxtu waru la sëñ Massamba Diop Samb xam nga ni ku jege Seexul Xadim moom alxuraan ak waxtu dana bokk ci loo xam ne looy fonk la moo tax bi ñëwee jubal si nañ ci néegu yàlla bii muy euh, jumaa ji gis ngeen ñi ngi nii di fi wàcce ay alxuraanul karim euh, di jàngi ay xasida di def ay salaatu ala nabi ngir ñoom barkeeloo ko ci bés bu màgg bi nga xam te moom la ñu jagleel sëriñ Massamba Diop Samb gis ngeen soxna yi itam ñi ngi nii rang la ñii ngi muuru rang yi nag ñaari rang la ndax daa am rang goo xam ne rangu jigéen ñi la ak goo xam ne rangu góor ñi la muuru ba daj ngir lan bëgg dem siyaar yi barabu sëriñ Masamba Diop Samb boobu yi nga xamante si nii Seexu Xaddim moo waxoon ci moom wax ju rëy jooji moo tax it bi ñu ñëwee ba nga xamante ni jël nañ li nga xam ne mooy siyaar bi ak li nga xamante mooy njàng alxuraan meeg salaatu ala nabi mel noonu gis ngeen euh, dem nañ ci kër xalifa bi muy sëriñ Abdourahim Diop euh, nga xam ni moo fi des ci di doomi sëriñ Masamba Diop sam ñu koy ñaanal bu baax yàlla na ko saa borom yàlla defal ndam ak tawféex ñu ci nuyuwaale bu baax itam taawam bi nga xam te ni mooy sëriñ Samb Diop di ko xam ne tubaarkàlla bi mu ñëwee itam dalal nañu yaatal nañu tubaarkàlla berndeeg yëpp moom Serigne Sam Diop matale na ko ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla defal ko ndam ak tawféex bi ñëwee dugg nañ ci kër kilifa yu baree baree baree bari xam naa dañ koy tënk rek ndax euh, njëkkanteeg li nga xam te moom mooy jataay bi ndax dem nañ fi nga xam te mooy kër Serigne Bas tub kër Serigne Basiru euh, muy kenn koo xam ni sët la ci njabootu Serigne Massamba Diop Sam euh, waaye wala fi dañuy wax ni tungi ni du teew ñii nataal bi ñëwee dalal nañ ñu yaatal nañ ñu bàyyi ko mu nuyoo. maa ngi nuyu bokk taalibe bi yëpp leen sant ndax yi li mu toggool bari na waaye nag teewul ku ne bàyyi nga sa yitte ndax fan yii rek démb maa ngoon ñëwaguma fii waaye nag lii dañ koo jàppan ba fomm xaw naa lëf bi te lépp sëñ bee ndax lee yàlla lii dogal lii noonu la ndax ñaan la te ñaan nag baax na ci kan deman démb baax na ci kenn fekk fii it baax na ci nun ñi it yàlla na ko yàlla defal defal ko taalibe yëpp yépp waaw te it fii moom yoonu kër ma Massamba Diop moom nun lépp suñ lépp sëñ Touba rek waaw lépp suñ lépp sëñ Touba rek ku fi neen sëñ Touba rek noo ngi sa ginnaaw loo digle ci loolu la ne loo teree lan ca man lépp du ni lépp de waaye dana dawlun man danañ ci dawlun man waaw kon nag daanaka gudd gàtt daal mooy loolu waaw noonu man mi man mi wax ak yow ak samay kilifa nag am na ay ñu ma mag ñu bari suñuy waajuroo ne ci bopp bi moom lañ fi desee ci waajur ñi ci des suñuy mag lañ waaw kon nag ñooñu ñëpp seen tur laay waxee ndax fi ma ne rek la ñoom ñëpp ne sëñ bi moom mooy sunu lépp waaw ku fi ne sëñ Tuubaa yaay sunu lépp waaw te moom day def ko koo xam ni mën naa gudd mën naa gàtt gudd mën naa gàtt ndax ku yàgg ak sëriñ bi la ndax fii nu nekk tey jii fii nu toll du cosaan ndigalul sëñ Touba moo ko indi fii ne ko sancal ma ku baax ku ne ci armeel yi ku ñu wax sëñ Mor Batour Sarr ci gàttal bi mu ko yabalee mu war a dellusiwaat ci fa mu cosaanoo su cosaan soriwul fii waaye dëkkunu fii la ko ni demal ba tollook barab ba nga daw xelu fas sanc fa wattul ma barab ba ñun fi ndool barabu sëñ Mor Batour Sarr bi mooy ndigalul sëñ ma Diop bi ba sun borom wàcc ko fi liggéey sëñ Touba ngi fi ne digle nañ ko fi mooy cosaanu dëkk bii la suñu dëkk bi biñ cosaanoo mu ngi fii soriwu fi waaye nag fii lu gudd a gudd la waaye loolu ci gàttal mooy mooy cosaanoo sëñ Massamba ndax sëñ Massamba moom ba muy ànd ak sëñ bi menn maam Thierno la fekk sëñ bi di ko jàngal ñu dem ci loolu ba ba lii xew waaw ndax loolu day lu gudd gudd gudd la waaye bi muy dem sëñ Massamba mu di fa jàngi booba menn maam Thierno la fekk ak sëñ bi waaw mu mu bàyyi boo maam war nga fi jàngale waaye sëñ bi la ko ne yow laa ñëwal loolu nag day lu gudd gudd gudd waaye boobu kooku mooy sëñ Massamba Diop ci loolu ci moom di nun jàng lan ak diine ak taalibe tax nun kër yëpp nu ci gën a métti mbir ndax nun dañuy dañuy bokk sariya la fonk ak diine ak taalibe it sëñ Massamba mi daana wax ni Ibra Fall ñi ma ci taalibe sëñ Mbàkke bu sa yëbu ma ci diine loolu nag xaw naa doy <laughs> danaa wax ni sëñ Mbàkke bu sa yëbu ma ci diine Ibra Fall ma ci taalibe waaw kon nag jërë ngeen jëf rek waaw ndax ndax day gudd te ndax waaw. Euh, moom it dem nañ ko siyaare ji ko dem nañ itam fi nga xam te mooy kër Serigne Moustapha itam dem nañ fa ak ki nga xam ne mooy Serigne Mourtala itam dem nañ foofu ak yeneen kër yoo xam te dem nañ fa ñeneen ñi ci des it dem nañ fa waaye bi ñu demee kër Sëñ tubaar tubaarkàlla kër yu baree baree bari dem nañ fa ngir siyaare ji waaye ñi ëpp ci ñoom bi ñu demee rek dañuy kàddu gi ñoom benn la su kilifa gi waxee rek waxaalal na leen ñoom yëpp ndax xam nañ ni bitel bu nekk la mu def loolee rek la saañ bay xeeñ moo tax ay image rek lan fa jël ñu leen ci sant baax di leen ci gërëm ci nangu taalibe googu ak yoon woowu nga xam te moom lan nga xam te wane nañ ko ci foofu nga xam te moom mooy ci jataay bi waaye gis ngeen itam wàllum bernde yeeg tubaarkàlla lépp rek euh, mat na fi mu nekk nag loo xam te bis la boo xam ne kenn dootu ko kenn dootu ko fànte waaye ñu profité ci occasion bi siyaare bu baax ki nga xam te mooy sunu jëwriñ ci site bi muy góora góor a sekk di koo xamante si nii kër Serigne Massamba Diop Sam mooy buntam ci kër Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul ndax moom Serigne Massamba Diop Sam moom lay waaje moom lay wàllee muy Serigne Gora nekk foofu ci Touba Argentine ñu ngi koy nuyuwaale bu baax a baax di ko ñaanal ndam ak euh, tawféex yàlla na ko saa borom yàlla defal ay kattan ba mu dem ba am ay télé télé télé télé télé ndax na ay jumtuwaay yu baree baree bare jox ko ñi nga xam te ñooy ay reporter ñu ñëw ngir couvrir si màggal gi nga xam ne mooy siyaare bi nga xam ne moom lañ jagleel ma sàmba Diop Sam ñi ngi àndoon nag ak euh, sunu jëwrin bi nga xamante ni moom mooy jiite liggéey bi muy sëñ Cheikh Samb di sunu doom baay ak sunu beneen caméraman bi nga xam te moom mooy Abdou Ndiaye. jërë ngeen jëf euh, mbokk yi nga xam ne yéen ngi topp seen programme yi ci site bi di Touba Argentine TV ñoo ngi leen nuyu baax di leen siyaar di am te kontaante bu baax euh, ni ma ko waxee woon sànq nag tey ñi ngi fii ci Daaru Sam ci njabootu Serigne Massamba jot Sam waaye bi ñu ñëwee nag lii ñuy gën a neex ci jataay bi dañoo ñëw fi fekk fi koo xam ne kenn la ci ñun wax dëgg yàlla lu defal na ko ci tiranga muy sëriñ Mbacke Talla Ndiaye di sëtu nag sëriñ Daaru Assane Ndiaye nga xam ne ku xamul sëñ Daaru soo ko gisee jàpp ko ngir meloom ku miinut sëñ Daaru yi soo ko gisee dina la xemeem loo sëriñ Daaru Assane Ndiaye bi ñëwee nag fekk ko ci jataay bi ñu am ci mbégte kontaan trop bëgg laaj tuuti ci moom nag lan mooy bu teewaayam bu ko defee mu dolli ñu tuuti ci diggante sëriñ Massamba Diop Samb ak sëriñ Daaru Assane gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi di leen siyaara te di leen balu ak te di leen balu ak yéen ñëpp waaw ah, nag dañ fee dikk ci délégation bu jógee kër sëñ Daaru Wasan ci sëñ Abdou Khadir mi nga xam ne yàlla dogal na tey mu toog toogaayu sëñ Daaru yebal ñu fi ñu ànd ak sëñ Ousmane di doomam jiite délégation bi ak sëñ Mbaye Fallou moom sëñ Cheikh Fatou la am na ni di wax ak yéen sëñ Mbàkkam sëñ Taalam sëñ Ousmane ak Cheikh Ousmane sama rakk di doon sëñ Badam sëñ Ousmane euh, sëñ Abdou yabal mi fi ngir ñu ñëw ci bis bi nga xam ne sunu bés la ndax kat sëñ Daaru sa nag kat sëñ Massamba Diop yaakaar naa ñëpp xam nañ ne du ñaari kër waaye genn kër la loolu it ñi nga xam ne ñoo fi jotoon a jiitu mhm. doxoon nañ ca lañ ca war a dox mhm. waxoon nañ ca lañ ca war a wax mhm. taxawaay bañ ca waroon taxawee yépp it taxawee nañ ko ca sëñ Massamba ak sëñ Daaru nag seen ànd dafa yàgg laata ku tedd di woote ñoo bokkoon daara ca kër sëñ Maamor Anta Sali di jàng wax nañ ne sëñ Daaru San sëñ Massamba Diop Sam sëñ Touba suree wun woon ay àlluwa ba ñuy jàng ca daare Maamor Anta yàlla boole leen ñu nekkoon benn am na ñu wax ne ñoom ñaar ñoo bokkoon benn lal buñ daan tëdd wax nañu ne keroog bi nga xam ne Maamor Anta Sali jigéen fi dañoo continuer ñoom ñaar na ca ja ci keppaaru Serigne Touba di jàng bi nga xam ne Serigne Touba it yàlla dogal na ñu jox ko ndigalul woote ba mu wootee wooteem bu siiw boobee te mag ñu baree bari nekkoon ca daara ja yàlla dogal ñoom ñu demoon seete feneen fu ñuy jànge ngir ñoom dañoo waxoon ne doomi soxna ñoom jàng lañ ca xam yàlla dogal nag sëñ sàmba Diop daal di toog wax nañ it ne wax naag sëñ Darou Assane ba yàlla dogal sëñ Darou Assane Euh, waxtaan ak ba mu waxtaan ak sëñ Massamba Diop wax na ni sëñ Daaru sax dafa bokkoon ci ñi nga xam ne dañ ne woon ñoom it doomi soxna jàngalam ci xam ci nettalikat li ñu wax ma Massamba Diop wax ko ne ko Morasan mu ne ko naam mu ne ko man de jàppoon naa ne fu ma fanaan da nga fa guddee kon nag damaa bëggoon nga fanaan ba subaak jàmm ñu doo ko seet ba xam na ñu def bi mu fanaanee tëdd ba guddi daal di yër mbirum sëriñ bi suñu borom xamal ko nekkoon ko lu muy wutee lu mu mënti doon ak fa mu koy wutee ji li fii moo ëpp solo loola moo ëpp doole loola. yàlla dogal mu daal di toog ba mu xëyee daal di jébbalu. wax nañ ne it ñeent ñi njëkk a wala juróom ñi njëkk jébbalu moo leen juróom-benneel am na ñu ne juróom am na ñu ne juróom-benn mu jébbalu ca bis bu njëkk ba kon yi ma wax la ca suba daal di jébbalu kon seen diggante ñoom ñaar diggante la boo xam ne yàgg na lool ah, ñi. bi nga xamante ne suñu borom dogal na ñu dem ba xam loola ñun it dañoo daal di daal di fexe ba xam fa mag ña tegoon seen tànk ñu ñu teg ko fa. yàlla dogal ñuy dem demlante yi dikkalante. yaakaar naa màggal gi fukki at yi mujj yi man tardewu ma ko ak Cheikh Ousmane ak Cheikh Mbaye yaakaar naa ñun ñett ñi. délégation bu man di doon dañuy wut ñeneen boole leen ci waaye ñun ñett ñi fukki at yi yaakaar naa tardé ko. waaw kon nag euh, waa kër Sëñ Massamba Diop it ay nit lañ yoo xam ne. ñu neex a àndal lañ ndax ñoom it fa nga xam ne seen maam fa la tegoon seen tànk foofu rek lañ ko teg ndax yaakaar naa dox ba gis kenn ku matadi wala nga dox ba gis kenn kuy dox doxin waa xam ne du doxin wu jub te ñu ne que sëñ ma Samba Diop Sam la dëkk man ko bët néew ma amut waaye man tegaguma ko bët waaw kon nag ñi ngi sant bu baax a baax biñ fi dikkee it ci ndigalul sëñ Abdou comme noonu ma ko waxoon ak ñi nga xam ne ñoo jiite daayira sëtaati sëñ Darou Sane ñoom ñëpp ci seen ndigal lañ fiy dikkee kon ñu ngi sant bu baax ci taxawaay bi nga xam ne it bi ñëwee taxawu nan ñu ko ndax yaakaar naa ne fii gën a tedd ci ay dal dañu wax ne ñoom at mu nekk dañ koy jël jagleel ko waa kër suñ Daaru sam dal yi nga xam ne moom lañ gën a fonk ci dal dal boobee kër sëñ Daaru lañ koy jox kon loolu ñun ñu ngi dañ ci sant bu baax di feddliwaat suñu kóllëre suñu suñ ak ñoom di ñaan suñu borom tabaaraka wa taala seen bis bii liñ ci sàkku di ko ci wut te muy ngërëmal sëñ Massamba Diop yàlla dimbali leen bañ am ko niñ ko bëggee loolu ay kàddu la yoo xam ne dama ne naa ko ci tàmbali. dégg ngeen kàddu yooyu nga xam ni moo tukkee ci sëriñ Mbacke Talla Ndiaye moom sëriñ Talla euh, di kàddu yoo xam ni rek euh, tubaarkàlla amul benn commentaire bu ñu def xanaa di ko ñaanal bu baax rek. ndaxte ñëpp am nañ ci moom yaakaar ndax daana dégg sama maam mu naan parfum bu neex moom làmmiñ du ko jaay bakk na koy jënd te moom wax dëgg yàlla am ci foofu rek la nekk heure boo gisee muy dox ci ndimbalul jaam ñi ak ci luy booleek mbokk luy defarek mbokk ci lay dox ku mel noonu nag dina soxla ñu ñaanal ko kon sang bi Njaay ñu ngi lay ñaan bu baax yàlla na la yàlla musal te mosal la taawu la yiir la te làq la foo xam yàq yëggu kon asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë jëf kon nax sa waxtu ba waxtu bu nekk nga def te a def loolu bokk na ci léegi noonu it bokk na ci li ñu war ci sunu waxtu ñu jullit ñi rawatina taalibe yi mooy ñu waxtu yi ñu am féex ñu profité ngir mën ko jariñoo ndax ku ne xam ne ak jot bu ñu waxtu bu defu dara day xéwal bu rëy rëy boo xam ne yàlla daf koy xéwal nit waaye daf koy sàggane nit yëg ni sax ak jot xéwal bu ko defee day bàyyi mu ne moom moo tax suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ñaari xéwal yi nii yoo xam ne lu bàyyi bari ci nit ñi dañ leen ci nax mooy dañ ci dañ ci wor day doon xéwal mu wér mooy ak benn tabax bu lay gaar ko ci def dara mu ne loolu xéwal la boo xam ne ñu ko am duñ ko yëg ba duñ ko jariñoo ñu ko war a jariñoo niki noonu tamit ak xam ne ñu ko am du ko mën a jariñoo lu may dajal ba ñàkk ko dóor yi ma mën a ko réeré loolu tamit sëñ Touba moom la daan ak man ñi nga xam ne ñoom la doon yàq sëñ Touba moom mos a jot foo ko fekk rek ñu ci dara waaye daawul taw ak lu xëy ne taw rek ne ne ca la defu kaay daaw ko def benn mi ngi jëndi wala mi ngi jàng wala mi ngi bind wala mi ngi jël ay bagages te commune rek waaye kenn mosu ko fekk mu toog noonu sa bopp jamono bi nekk rek waxtaan bi ñu koy def ci li war a def noonu itamit dañu la woon nag ñu nekkoon ci tubaab njëkk yi danañu jox ñu si kàddu buy julli ci ànd ak ñoom. ñu topp ci ginnaawam di si kat bu jullee ba noppi toog di di si kat toog di ko xaar ci jàkka ji gi ñu topp ci di si di wax laa ilaha illallah ci nam lañ ko jàngal ñu di ko daaje noonu bu ñëwee toog léeg-léeg mu jox leen ab bind mu ne leen jël leen nekk sàkkam ngeen yóbbu ci barab sàkkam ñu jël néeg boobu yóbbu ko ci ba ku ñëw sax du xam ne néeg bi dañ ko doxalee kon da leen yaroon ci ñun doon dund moom ci sàmm waxtoom mu yare ko moom taalibe yi ba kenn du am jot ba ndax doomu aadama bu amee jot rek daal dugg ci lu mu dugg mu wax lu mu wax wala mu def lu mu def loolu moo tax Serigne Touba radiyallahu wax ci tasawur sigaar ne na ngeen màng seenu féex bi ngeen am na jot balaa soxla ni sumal faraaxu xabla shughla yasi soo amee jot góorgóorlu def ci war a ndax léegi tey ak soxla daal ñëw bu ko defee dana jàll koor ba dootoo mën a waaw public bu noppi rek dellusiwaat ci Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ni mu doon yare njabootam yi nga xam ne ñoom la nekkaloon ci Tuubaa bu njëkk nga xam ne daaw mu am genn jot daaw waxtu nekk mu moom mi ngi ci dara dox daawul toog def loxoy neen kon bokk na ci yi nga xam ne moo ñu dimbalee ñun jullit ñi ñu mën a sàmm suñu wax mooy ñu jullit rawatina ab taalibe war nay def fu mu toll muy te njii kat mooy gaaw démb moo doon ajjuma nga toog régler sa bopp ci ajjuma bi nga xëyee ci suba jant bi so ba nga tëddee nga xool lan nga fi lan nga fi def ci lu baax ak lan nga fi def ndax doomu aadama ku nekk moom xam na boppam nit ñi ñoo lay ëppale waaye yow xam nga sa xam nga li nga def nga def bu fekkee ne gis nga ne yoon ci góorgóorlu ah nga gën a yokk sa góorgóorlu waaye sax boo xoolee gis ne am nga gàttal ko wala def na ci lu noona jëw nga fi wax nga fi nit lu ñaaw bàyyi nga fi julli wala yu mel noonu su bàyyi daal tuub nag ci boobu te fas yéene li la ci ay dugg ci.

muy ànd ay nit ñu nit ñoo xam ne fu ñu toll seen waxtu ña ngi koy jariñoo ñooñu de boo la jaxasoo ñoom di ànd ñoom sa waxtu sax loolu moo tax suñu sëriñ sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu wax ne bind ci nañ bi wax ne idaa kunta fii qawmin fa saaxib xiyaarahum wala tasxabil arda fa taxda ma adadi mu ne boo nekkee ci ci mbooloo na nga seen ñu gën ca mbooloo ma ña gën ci xel wax nga ànd ñoom waaye boo àndee ñu suufee ñi noonu la ñu ut wàll ak suuf yi te ñu mën a sàmm suñu waxtu mooy ñu xam doxee ni ñu baax ni ñu baax ni ñu doon seen waxtu ñu fexe xam loolu loolu tamit ñu mën a sàmm suñu waxtu alxasanul basri yi liñ dafa wax ne yow doomu yàlla man dafa mel ni ay fan nga bis bu dem rek am na lu wàññi ko ci yow nit bu dee téeméeri fan la day mel ne bis bu dem rek am na lu wàññi ko fan yooyu te lépp lu wàññi ko nag bu yàggee day mujj jeex daana waxta ñu ne àddina ñetti fan rek la démb wéy na da nga koy loolu jàll na ëllëg ñu xamoo lu ca yàlla di dogal kon tey jii rek moom moom kon fexeel ba tey jii nga moom nga def lu am solo la mën a jëriñ sëñ Fallou radiyallaahu anhu daana wax ne démb wéy na ëllëg ñëwagut tey rek nit ki ñun du koy loolu lu ñu ci misaal waaye bokk na tamit li ñu mën dimbale ñu mën a sàmm suñu waxtu mooy ni ñuy jariñoo suñuy waxtu léeg-léeg ñu di ko soppi ndax bakkan yàlla daf ko bindee lu mu taamu rek da cee dugg nit bu doon ñëw ci ay conférence ba mu sëñ bu doon conférence lu yàggee mu taayam waaye léeg-léeg nga soppi li ngay jariñoo sa waxtu te xam nga waxtu ñu ko mën a jariñoo bari na loolu léeg-léeg nga julli nga wut daal boo xam ne ni julli léeg-léeg nga woor léeg-léeg nga jàng alquran léeg-léeg nga jàng xasaayit léeg-léeg nga tudd yàlla léeg-léeg nga dem tudd seeti nit ku baax léeg-léeg nga dem liggéeyi nit ku baax léeg-léeg nga ni diw kat tawal na nga dem seeti ko léeg-léeg nga tudd dem jàngale jàngal nit ñi li maa jëriñoo wala nga tudd yow sa dem jàng lu yokk sa xam-xam. wala moom ngay laaj nit ñi ak leen orienté ci lu baax wala ngay yar say doom wala ngay liggéey maanaam sa sa waxtaan bi ñu koy jariñoo da nga ko soppi la rek bu nekk ak la ngay loolu moo tax sa bakkan bi du taayal sa bakkan bi yombal ci jàmm yàlla ngay def bokk na ci li ñuy ci ñu mën a sàmm sa waxtu mooy ñu xam ne lu xas weesu lu nekk rek loola jeex na maanaam waxtu bu wax bu xas jàll rek woowa jàll na te kenn mënu ko remplacer fi mu ne tisbaar tey jii rek jàll na deux heures tey jii si ba tey jàll na doo jël si bu mukk beneen deux heures moo ñëwaat kon nit ki boo xamee ne lu xas jàll ci waxtu jàll du ñëwaat ah dana góorgóorlu bu waxtu mu toll mu mën koo jariñoo balaa muy def mu def te ko mën a jariñ bokk na si li ñu ci dimbale it ñuy fàttaliku dee ak waxtu sukuraat fàttaliku dee ci ne waxtu yi ñu dund nii ci lay ñëw waxtu bu nekk rek nga fàttaliku ne heure sàngam dee mën na ca ñëw ndax nit ki nekk am na waxtu bu war a faat am na at bu war faat am bés bu war faat am waxtu bu war a am minute bu mu war am seconde bu mu kon loolu boo ko dee fàttali ko yow jullit bi dana tax sa waxtu doo ko sànq moom. loolu mooy dimbale nga góorgóorlu ndax da ngay fàttali ko ne bis boo demee ba sukkuraan yow la ngay bëgg mooy ñu bàyyi rek nga dundaat da ñaan mooy nag ma may tuuti rek ma dundaat ndax ma la lu baax te su baax ak nga suñu borom wax na ci alquran ne ne hatta ida jaa ahadahum almawt qaala rabbi irji'uun la'allii a'malu saalihan fiimaa tarak ma dañuy dem ba day ñëwal de ñu ne yow yàlla may ñu ñu delluwaat àddina ndax ñu mën a defaat lu baax ci liñ jotoon def te doonoon sama dina ko defaat mu nekk lu baax Sëriñ Tuubaa wax na ne wa arhaqu al-ashyaa'i lil amwaat ردهم إلى الدنيا مع حياته ولو سويعة فقد ليعملوا صالحة تنفعهم إن قفلوا mu ne ñi faatu nekk ca amee soo demoon laaj leen foog ñu leen ñu jóg dana leen lu leen gën a bëgg dañu wax mu ko ay oto yu rafet wala ay kër yu rafet wala ay jigéen yu rafet wala alal ju bari waaye mooy nañu dellu si waat ci àddina rek donte benn waxtu néew la ñu mën a jëf lu baax lu leen mën a ak lu ñu kon ñu wàññi ko waxtu ñun ñu koy dund yëngu ñu sax njëriñ dañuy dem boo faatu loolu yëpp nekkate waxtu ñu doon nekk kat nekkate am na moo tax sëñ Tuubaa wax kon li may dund te nekkul ak topp yàlla gaawal na tuub te li des sa dund nag nga góorgóorlu ci baax. ni ki noonu it bokk na si lii tax nga mën a sàmm sa waxtu mooy ngay bañ a ànd ak ñuy sànq si waxtu képp koo xam ne xam nga ne waxtoom ma doy sàggane kooku bul ànd ak moom Sëriñ Tuubaa da doon dénk benn naar benn naaru gànnaar na ko bul ànd ak koo xam ne nii du la war a na nga sori képp ku la mën a arak ndax bariwaan koo xam ne ab dof la waaye mujj na xel mu lool te la ko waral mooy day ànd ku am xel day ànd ku baax waaye bariwaan ku yiw lool mujj na torox lool te la ko waral mooy day ànd ku dof far mu réer bokk na ci tamit lii tax ñu mën a sàmm suñu waxtu mooy ñu fàttaliku ëllëg bis bu ñu taxawalee ci kanam yàlla. dinañu diñu laaj suñu dugub ji ci la lañ ko jeexale ana su boobaa moo doon suñu kenn bu nekk ñun buñ ko taxawalee ci kanam yàlla di ko laaj sa dugub ji ci loo ko doon jeexal su boobaa man loolu boo ko defal sam xel sa dund doo ko sànq bokk na ci tamit néewal say melaw ndax xam ngeen ne ci misaal kuy nelaw juróom-ñetti waxtu ci bis bi maanaam képp koo xam ne bis bi ci naaw dina mat juróom-ñetti soo dundoon juróom-benn fukki kon ñaar fukki at yëpp rek soo dundoon juróom-ñeent fukki at fanweeri at yëpp rek ko neew nga xool ko ne ni bàyyi moo tax nu ñu baax ni ba ñu xamee loolu wàññi seen ñoom ba yàlla teg leen wax ne kaanu qalilan min al-layli maa yahjaun mu ne guddi gi bi ci daa nelaw tuuti rek ndax nelaw mënut a ñàkk seen tubaab yi bu mel ñoom dañu war naw ko fi layli baaxu bil munaajaat dañoo jaay seen nelaw guddi gi dañ jaay jënd ko déeyal ak yàlla ak jaamu yàlla nga xool ñun suñu waxtu ni muy demee ni pare diir bi ngay sangu nga xool ñaata la jël ci moom soo nappee nga diwu diwu bi ak waxtu ak ñaata la jël saw di tànn ay yére ba yére ngay sol ñaata la jël nga doon jël benn yére sol ko nekk di jekkal ak defar ñaata la jël toog door a xool sa kanam ndax jekk na wala jëkkut nga xool lépp lépp lu ñaata lay toog ci sol bu kenn asam lu mën a nekk fukki minute da nga ci am daanaka wax ci defar ko ak waale lekk ñëw da nga xëy nekk xëy añ xëy da nga xëy nekk bu bët si déggaay bu ko déggaay te lu ci nekk day jël ci waxtu bu bari nga jël ngeen toog sa gaana place bi waxtaan ak say xarit ak say àndandoo ngeen toog waxtaan ñaata lay jël sa wax dafay bari lool nga war a doxantu ji boo xëyee doxantu ji wala boo rëyee ba nga doxantu ji ñaata la jël ci ci sa waxtu kon day mel ne bis boo ko xaajee boo ko xoolee dañ daanaka la cay des ngir mën a jaamu yàlla bu bari lu néew néew moo cay des loo mën a jaamu yàlla te loolu nag boo ko xoolee dëgg ak ak loolaa nga lay jural ak jullit rawatina ak ab daal bokk na ci lii gën a mën a sànq suñu waxtu mooy jumtukaay yi nga xam moo xew léegi mooy internet tam yomb léegi ñëpp mën ko jëfandikoo ñaata waxtu la ñuy def ci déglu ay son ak i ci WhatsApp kat. mën a toog trois heures de temps yoo xam ne nii da nga déglu ay audio ak di di tontoo ko bàyyi te boo ko doon segg ñetti waxtu yooyu ba ca jël ñu sax fukki minute la ñu def da ngay waxtaan man kat wala ngay déglu yoo xam sax léeg mu am njëriñ nga gis koo xam ne waroon naa mën a tëdd onze heures wala minuit mën a yow six heures minute du fajar waaye day nekk ci réseaux sociaux yi ba nga xam ne daanaka day dem ba 5 heures mu door a tëj naaw fas yéene yow 11 heures ci bëccëg wala 10 nga xam ne yi kenn xamul mu toll. nga jël Facebook noonu nga jël ni moo naan boo dem yooyu yëpp boo dee xool suñu jamono ji ni ko jëfandikoo dafa ëpp ba yàq lu bare bare ci suñu dund yàq lu bare bare suñu wax ñu ko waroon a jëriñoo te ñu ko jëriñoo te yooyu nga gis noonu lu ci nekk am na njëriñ am na ay yokk dañ koy mën a jëriñoo ci baax am tamit benn wàll boo xam ne bu leen ci dégg nga kon yow mën ngaa jël Facebook wala WhatsApp wala yooyu nga jëriñoo ci fàccee soxla xam ne seen euh, addina xam ne seen diine mu amal a njëriñ mën cee jokk ko say xarit waxtaan ak seen mbiri diine seen i soxla yi addina mën jënd waaye leneen ñu jëfandikoo ko ci geneen anam nag ba day mujj daanaka lañ ca waroon a jëriñoo day mujj duñ ko mën duñ ko mën a jariñoo bokk na ci li ñu gën a lool suñu waxtu mooy suñu waxtu ni koy tasaare boo dee xool ni ñu organiser ni ñu suñu dund ñu ne tey jii dañuy amal waxtaan bii waxtaan wi cinquième étape bi jeex sixième bi ñëpp ñibbi waaye bala ñu tàmbali six heures moins wala six heures war nañu jox six heures demi dana dem boobu vingt deux heures nga xool ñaata ñu sànq foofu jox loolu day dem ba ci sunu ndaje luñ mën a waxtaanee ñu fukk ñu nit ñi dana ca waxtu la rek te sa léeg-léeg dara du ñu ko loolu lépp mooy dañoo mën a suuf suñu waxtu ba mën ko te waxtu moom boo ko nusul rek. mu moom kay mu toog la xaar bokk na ci ni lor lu bare bare ci nit ñi mooy di dox te amoo jubluwaay dara ñu gis koo solo ba jekk te soo ko laaj bu foo jóg a wax ne bara sàngam laa dox rek fu mu njëkk a jot rek lànk fu mu tasee tamit mu loo ko loolu sëñ Tuubaa da koy tere ci nëx dafa nit buy dox na dox gi lay sonn waaye bu dox rek yëpp bëgg a doxoon képp nga amul amul bu leer ci li ñu dox bokk na ci li ñuy dox suñu waxtu mooy waxtaan yi jokkoo téléphone ndax bu ne xam na ne ay soxla ay soxla moom mu tëjaat maanaam soxla képp waxtaan ko waxtaan ko mu tëjaat la ca des moom ay yeneen détails da nga gis bu ci wootee jaaxaat ci la wala ci basanam toog lu mat waxtu te boo de xool la muy wax la ca am solo boo doon xool juróomi nit na ko bañ a kon téléphone li muy yàq ci suñu dund na lool li muy xen ci waxtu bi a jëriñoo it bari na lool. ñu ngi noonu yi au lieu nit ki mën a jël dara di seetlu mooy day di bëse fu ne mu mën a toog takkusaan ba ci loolu lay nekkal te mu ne loolu mën naa jël alxuraan jàng wala mu jël xasida jàng wala su mu jàng mu yor kuusam tudd yàlla di xalaat ci yàlla bindee fa waaye dana mën a jël téléphone man ca passé temps yàgg-yàgg. te dox nga ñaan nekki noonu it lu ñu war a def lu nekk ñu di ko yeex nit war a organiser dundam bu nee tey jii dafa war a dem barab sàngam mu dem ci def loola tey jii daa war a def nangam mu def loola waaye bu mu naan damay xaar ba ab sàkk naa ko bàyyi beneen naa bàyyi lu ginnaaw suba naa bàyyi ndax kanam loolu leen bokk na ci li tax suñuy waxtu duñ ko mën duñ ko mën a duñ ko kon jullit bi nan la mën a def nag ba mën a jëriñoo waxtoom te loolu moom la ñuy tëjee waxtaan mooy mu jagleel waxtoom ab xaaj boo xam ne da ciy jiima mokkal alquran ak di ko ci nga ne man ka dinaa def bët bu set ma jël fukki minutes yoo xam ne wala ñaar fukki minutes yoo xam ne dama ciy jàng benn aaya bokkal saa su ma xëyee danaa jàng benn aaya mokkal ko door def lu may def nga fexe sax ci loolu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki gën ci nit ñi mooy ki jàng alquran bi ko jàngal Sëriñ Tuubaa wax na ne kullu muridin bi yaludu fal yudin tilaawatan bi xayri dikrin xaddasi mu ne bépp taalibe bu wéeru ci man aju ci man digal naa ko muy saxal di jàng alquran nan la ñu mën a jariñoo suñu waxtu mooy jariñoo ko ci jàng xam-xam jàng tekkiwul rek gàllu sa téere doon jàng loolu ci xeet jàng la bokk waaye jël sa téléphone def ci audio boo mën a jariñoo mu ñu ko déglu loolu jàng la toog woo nit laaj ko dal diini mu leeral la loolu am jàng la toog ubbi ab téere jàng ci dara loolu am jàng la kon xam-xam li ko yokk du ko am juróom ak téeméer dem te léegi nag man lay xam du jumtukaay yi ñu mën a jàng bari na lool moom nit lu ko ubbi ci rek da ko jox lutte waaye bu ko jox lutte rek mën na koo xam te coono bi dem noonu niki noonu tamit di tudd yàlla foo toll nga tudd yàlla ndax xam ngeen ne tudd day tax seytaan du la jege seytaan saa boo tuddee yàlla mu waaye saa boo bàyyee mu ñëwaat. moo tax saa bu ñu noddee rek day wane ginnaaw ndaw bu nodd gi daana mu ñëwaat kon yow jullit bi saa boo bari looy tudd yàlla day tax seetaane joge eh, sori la mais nag di bari looy naafila ginnaaw booy jullee farata ba noppi nga julli lu jàpp ni ci ay soo noppee ci tisbaar nga julli lu jàpp ni ci rakk bala ngaa julli takkusaan nga julli lu ñaar wala ñett ñeent wala juróom-benn wala lu boo julli timis ba noppi nga julli ñaar wala ñeent wala juróom-benn bala ngaa julli gee noonu boo jullee gee ba noppi tamit def naa la def sa faa bi tax léeg-léeg nga coobare woon naa fi bu fekkee waxtu mu rafet naa fi la moo tax Sëriñ Tuubaa wax ne wa aamil awqaata bin nawaafili ba'da al mën na defal dundal sa waxtu ci ay naafila ginnaaw bu faratee jaaree te bañ a sàggat bokk na ci li ñu mën a fexe ba suñu waxtu ñu mën koo exploité mën koo jëriñoo mooy di ziare di ziare mbokk yi nga fexe ba sa sa waxtu nga jagleel ci jamono joo xam da ngeen ci dem ziare bi say mbokk dem jokk ak mbokk benn waxtu la wala ay minute la nga fexe ba loolu nga programme sa dund ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku bëgg. yàlla yaatal wërsëgam yokk aw fanam nay jokkoo ak bokkam niki di profité ci heure nga xam ne mën nga caa jëriñ maanaam nit ki day toog jóge Tuuba ba Daaru Salaam dugg ci oto toog di xoole baas loolu bett na dëgg dugg ci oto Tuuba ba Daaru Salaam nga jóge Daaru ba Tuuba toog di xoole kat moo ne mën ngaa tudd yàlla wala nga jéggalu yàlla wala salaatu ala nabi wala ngay diglu loo xam nag ci mën a jëriñ mais dañuy noonu rek du xoole baax lu bari bari ci ñun wala nga dem ci barab bu ñuy raam moo xam bu ñu fay courant la wala hôpital la wala banque la xam dañuy raam ba sa sa ay jot mu ñëw da waxtu woon da ngay toog du xoole nga xam waxtu woowu noonu mën nga fa mën nga fay am. tuyaaba ju bare bari waaye da nga ko mu raw ni fexe ba le Sëriñ Tuubaa waxoon suñu ba suñu Mbàññ Njaay na ko ndax mën ngaa wàññi mu tàmbali wàññi am benn ñaar ñett mu fekk na ko ndax lu ne ko yaa ngi sàgg sa dund booy wàññi allahu ahadu allahu samadu lam yalid walam yulad walam yakun lahu nga xam ne wàññi nga fukk ma soxla yow tey amaani nga ci yool ku jàng ñaar fukki si ci ci dara kon loolu it luñ mat xel niki noonu it maanaam euh, fexe jàng yi am njariñ ci sa yi am njariñ dañ fexe ba jàng moo xam luy tax sa dund mën a jag la moo xam luy tax sa diine mën a jag la nga fexe góorgóorlu ci yooyu di ko ñàkk bañ a bàyyi waxtu bi muy dem noonu kon yaakaar naa ne ci biir waxtaan wi danañ ci mën a jàpp waxtu ni mu amee solo ci ñun ak ñun jullit ñi rawatina taalibe yi nan la ñu war a suñu waxtu ak lan moo ñuy dimbale ci ñu mën a sàmm suñu waxtu. ak nan la ñuy jariñoo suñu wax yaakaar naa yooyu bu fekkee ne bàyyi nañ ko xel jàpp ko des sa mën a jariñoo suñu dund suñu waxtu lu mu gàtt ak lu mu bari bari dara ci neen lépp dana ko mën a jariñ kon ñu ngi koy fàttaliwaat ñëpp di ko dénkaat ñëpp ñu gën a sàmmaat waxtu bañ a bàyyi waxtu bi dem ci neen ndax waxtu ba am na solo lool lool lool ci dund kon nañ ci gën a góorgóorluwaat gën cee bàyyi xel bu baax dañuy euh, mën guddal ndax jotaay bi ñu bëgg a yàgg te des na yeneen liggéey yu ci liggéey bi kon ñu ngi jégg bu baax delluwaat rek di nuyuwaat suñu kilifa yi di leen ñaanal yàlla yàlla gën leen a sàmm gën leen a aar te yàgg leen ci kanam jamono bi te sàmm it mboolem ñi nga xam ne moo teew ci baat bi yàlla bind leen tuyaaba yi dem ak dellu si. dañ yàgg koo teewee ay at yu bari yu ànd ak xéewal ànd ak jàmm ak wér te benn gàllankoor ba ñaam loolu lépp suñu borom mën na ko tënku ko kon ñu ko ñaan mu defal ñu ko di delluwaat nag di jégalu ci gàttal bi gën am ci waxtaan bi ci ñàkk a jot ak ñàkk a leer waaye suñu yéene moo doonoon mu leer suñu yéene moo doonoon mu jot ñu mën koo jëriñoo kon yal na yàlla defal ñu ci njëriñ mu defal ñu ci dégg ak topp defal ñu ci tuyaaba yu bari ju kaw yokku. ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wa axiru daawaana rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa li daal moo nekkoon li nga xam di moom lañ leen jël leen fii nga xamante ni moom mooy Daaru Sam ci màggalu ma Masamba Jóob Sam yàlla ba mu nekk nag suñu mujj gi daje waaye gis nga yéen itam bi ñu jógee foofu itam Euh, dem nañ ci fi nga xam te moom mooy cérémonie officielle bi bi ñu demee ci cérémonie officielle bi itam sëriñ Moustapha Mbacke mu sëriñ Abdou Khadr Mbacke ñëw na moo yëkkati mujjee yëkkati sax jataay moom sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Abdou Khadr Mbacke moo mujjee yëkkati jataay euh, moo mujjee yëkkati ay kaddu ci jataay bi euh, daal di ñaanal taalibe yi ñaax leen mu nekk nag ay ay kaddu yoo xam ne yu am am solo la mu yëkkati ko ci diggante sëriñ Massamba Diop Sam ak ki nga xam ne mooy Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul mu nekk jataay boo xamante si tubaarkàlla jox na fa leçon boo xam ne ña fa ñëwoon ñëpp ci cérémonie ba maanaam jox na leen loo xam ne war nañ cee mën a nàmp bu baax a baax a baax ba kere ñuy dellusiwaat déwén yàlla bu mu nekk nag suñu mujj gi daje ñoo ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm di leen ñaanal jàmm ak salaam di leen defal ndam ak tawféex euh, ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous euh, ci yeneen jataay asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jox